salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi yéen mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne yéenay safoo di ànd ak seen site asalaami tv ñu bàyyi xel ci asalaami point net wala ci seen facebook asalaami officiel ñoo ngi am mbégte de ànd ak yéen fii ci Daaru Salaam euh, ci jàkkaarloo ak sëriñ Cheikh Anta di xalifa Cheikh Mouhamadou Roqe Mbacke nga xam ne moo jëkk a wutu Cheikh Mouhamadul Mamoun mi doon taw maam Cheikh Anta eh, ñu toog moom nag ci ñaari xew-xew benn bi mooy le 9 janvier ku xam ne déggoon nañ appel bi nga xam ne defoon na ko doon woo murit yi ngir ñu yokk seen jaayante ci liggéeyal sëñ Touba ci àddiyee Daaru Salaam. addiye jooju yaakaar naa ne ginnaaw la 9 janvier eh, dajale nañ ko ba lim ba toll ci trois cent trente deux cent trente deux millions cent quatre vingt quinze mille francs eh, am na kàddu yu mu ci war a yëkkati waaye itam nag bokki jullit yi ak bokki taalibe yi yëpp nga xam ne rawatina njabootuk Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne wuy si waatoon nañ ci dogalu borom bi nga xam ne wàcc na fii ci Daaru Salaam te mu doon xalifa ñeenteelu xalifa Sëriñ Muudu Maawun te moo di sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ñu gënoon ko miin ci sëriñ Jili moom mi nga xam ne le 9 janvier ci turam la ñu woote woon addiya ji waaye fekkewut biñ koy jébbale waaye incha allah dana gën a leeral ci kàddu yi sëriñ bi mu fas yéene yëkkati kàddu yi cant nag ci ñaari wàll yëpp ñu déglu ko. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla subhaanahu wa julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa julli ci saxaabaam yu teddeya di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa kàddu yi nuy wax ñëpp dégloo ko xol te bañ koo dégloo ay nopp rek ndaxte diggante yi nu toll xat-xat yi bari na lool rawatina fii ci Daaru Salaam bu nu ñàkkee ñaari xalifa ci diir bu gàtt gàtt ñu wàcc liggéey eh, yëf tegaloo na boole ci mbas mi nga xam ne ci moo dem moo daj àdduna fenn fu nekk mbas moo ne fa ah te mbas mi yaatu lool di yóbbu lu bari waaye li ko mën a li ko fi mën a jële rek mooy def li sëriñ Tuubaa suñ mënut xaa wax yal na fi yàgg lool te wér suñ tubaa suñ mënut xaa yal na fi yàgg te wér mooy di ñaan ci sunu boroom di jégglu ak di jëfandikoo tegtal yi nga xam ne moom la euh, docteur yi nit yi àdduna yi docteur yi moom lañu joxe li ma tax di wax nag tey moo di sant mboolem bokki jullit yi ak bokk yi nga xam ne bi sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Jiili wàccee dañoo àndandoo ñoom ñëpp ñëw fi waaye ku ñëw rek boo fekkee ñëw fekk fi sëriñ Muntaxa dangay gën a boo amoon naqar itam day mel ni naqar wi dafa dañ kon nag sëriñ Mountakha noo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ndax dafa mel ni nun waa Daaru daf noo beral loxo sëriñ ji li muy wàcc euh, ki démb rek lay wax ne sëriñ ji li ba ma ko xamee ba léegi ci taalibe laa ko xam ak positif kon képp koo xam ne kii yégoon nga xew-xew bi dagg say soxla ñëw démb tey jii nga ñëw yandu fi ngir jëm si njëri ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la delloo ngërëm loo xam ne lii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ngërëm li nag buñ koy def defe naa ne sëriñ Tuubaa sëñ Muntaxaa moo ci jiitu ndax moo ñëw taxawu ko ba noppi bernde yi ñu fi war def yëpp ak teraanga mu def ko fi joxe ko te noonu la defoon ci sëriñ Mor Faati itam yàlla na ko suñu borom dolli leer def ko ci sëriñ Abdou Khadir yàlla na ko suñu borom dolli leer kon sant nañ ñëpp ci turu ki nga xam ne moo fi wuutu sëriñ Abdou Khadir di jëmmi sëñ Modou Mamoun tey di sëriñ Abo ñu ngi sant ñëpp ci turu sëriñ Abo ak turu njabootu sëriñ Jili sëriñ Modou Mamoun di seenub xalifa njaboot gi sant nañu ndax day mel ni mu sëñ Modou Mamoun mooy taawub sëñ Jili waaye day mel ni man mi may xalifa sëñ Jili ndax dawul tàggook sama baay guddi daawuñu tàggoo bëccëg sama bàyyi oto bu mu yor di da koy def ja ñaari caabi jël benn caabi bi jox ko suñ jili ne ko boo bëggee dem bu la safoor bi yóbbuwut nga dem fa ak foo dem di ko yóbbu fu ne di bokk moom di fanaan fu ne sëriñ jili itam ñépp xam nañ ne li mu nekk France lépp saa bu ñëwee fii fii ci sama kër lay nekk du nekk kër keneen ba yàlla dogal muy xalifa Daaru Salaam kon nag dem gi metti nañu lool waaye li li ko jullit yëpp bokk nun moo tax mu mel nii dafa woyof na tooy te loolu yéen rek yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw jàpp lañu moo tax sëriñ abonné ma naa leen delloo ak cant metti na lool nag waaye daal seenu taxawaay tax na mu woyof ci nun kon nag sëriñ Jili noo ngi ñaan sëriñ Tuubaa teeru ko teg ko ci loxol rasulullahi mu dugal ko àjjana jannatul firdawsi mook nit ñu baax ñam fekk ñëpp